mooy Sadio Mané Sadio Mané ballon d'or africain. waaw xam nga loolu ñun dañ ci am contentement bu rëy ndax ñun saajo maane dañ koy noyyee et mu gëm li muy def donc footballeur yu mag yëpp ndaanaan yëpp d'accord nañ ni saajo maane moom lañ war a jox ballon door bi kon bu gars yi hésité nañ ko jox ballon d'or bi. waaw yéen a ci ginnaawam. waaw ñu ndax barki dem moo Ndiaye rek mbuur dégg ngeen woy biñ ko fa woy dinañ ko dolliwaat tey pour ñëpp dégg ko. jërëjëf jërëjëfati. Youssou Ndour di soutenir Sadio Mané ba way ko ci Ballon bi nga xam ne compétition bi c'est dans deux jours. waa xam nga euh, Youssou Ndour en tant que précurseur dafay euh, wareefam pour que euh, lépp loo xam ne lu mu baax la ci réew mi dafay jaadu moom bu ko ci njëkk kenn njëkk wax lu baax rek ci réew mi kenn du ko ci njëkk incha allahu rabi te Sadio yi dafa ko mérité. waaw dafa mérité loolu wax dëgg neex yàlla loolu Youssou Ndour bu ko defee dafa def waree fam Sadio Mané Ballon d'Or Youssou Ndour way ko ànd ci ak waa Super waa waaw mais loolu la ñuy ñaan ñun ñëpp ko vraiment Sadio maane jël Ballon d'Or bi vraiment mu doon euh, sakk ak euh, kontante Sénégal yëpp te ñuy ñaan yàlla na ko jot ak jàmm te mu jikko waaw mais loolu nag dafa nekk loo xam ni euh, yàlla mën na ko def yàlla na ko def Youssou di ñaanal Sadio Mané jël ballon d'or africain ku ne xam ne compétition bi ñaari fan ci des ànd ci ak super étoile Sadio Mané ballon d'or africain. Sadio Mané bu ko jëlee war na koo jël bu ko jël war na koo jël ndax moo ko mérité pour def lu rëy am lu rëy li ñaan Sénégal nag moom mooy seen nan ñëpp àndandoo waat mobili mobilisé wu pour jàppale Sadio maane mu jël ballon d'or bi ci kattanu yàlla yàlla mën na ko Sénégal tamit am ndam ah war nañoo mën a gagné coupe du monde war nañoo mën a coupe coupe d'Afrique ci kaw bu xol yi waaye Sadio Mané ànd ak Super Étoile ndax ku ne xam ne dans deux jours la compétition meilleur ballon d'or africain ñukoy ñaanal rek yalla nañ ko ko jox mérité nako té c'est une fierté pour tous les Sénégalais wala déet xam nga kontaan nga ci loolu yalla na nek way